dégâts d'eau et que ça reste yàgg na ngay ngay wax fi plusieurs fois ci euh, en chef de gang euh, tey euh, bu ñu gisee li xew di ci réew mi dañ naan on je dirais pas que tu as raison loin de ça et est-ce que da nga jàpp ne dañ ko war a jëli moom président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom Ousmane Sonko cité ñëpp mais également seet dans l'administration Ousmane Sonko wax na ne amul kenn ku ñuy protéger pour xam effectivement ce qui s'est passé et comme le rappelle Pape Moussa suñ ko deful échec lay doon. en tout cas li xew ci réew mi depuis un certain temps nekkul état lay gën a drôle mais plutôt ab gang boo xamante ne nii lu waay neex def te dara du ko ci fekk xam nga balaa maa ñëw sax ci yenn chiffres yi. oui euh, démb bi ministre de l' économie di wax dama seetlu ci biir waxam mu ne euh, diggante deux mille vingt deux deux mille vingt Sénégal ci wàllu subvention énergétique dépassé na ci mille deux cent milliards. Hmm. benn année. yaa ngi imaginer mille deux cent milliards benn année ñu ko regroupé woon euh, ci cinq ans maanaam mille deux cent milliards nga multiplier ko par cinq ñaata euh, central la mënoon defal Sénégal ñaata central maanaam euh, pouvoir li mu doon gën a def mooy li gën a yomb on a fait aucun effort léegi comme que xaalis ñu ngi leb xaalis ñii ñu koy lebal amuñu problème pour lebal ñu ko. Mhm. léegi xaalis ba day ñëw rek ñu def ko ci subvention courant pour que sénégalais yi bañ fay lu cher. alors que suñ ko defoon xëy na sénégalais yi takk seen biir fay pendant cinq ans lu cher mais mu leer leen après ces cinq ans état bi dina def investissement boo xamante ni ku ci doon fay vingt cinq mille courant doo doo fay dix mille courant. Mhm. ñu mën a xam ne au moins ñii nekk à la tête de l' état mais ils réfléchissent de ça. ñu ne deux mille cinq cent milliards def nañ ko sous le sceau du secret défense. xaalis boobu fu mu dugg. loolu jërë expliqué la nag mille cinq cent milliards. ñu ne mille six cent quatre vingt douze mille mille huit cent quatre vingt douze milliards. abb nañu ko te xamuñu fan lañ ko dugal. mais le plus grave ñu ne six cent cinq milliards leboon nañ ko pour l' exercice deux mille vingt quatre te consommé nañ ko avant ñuy agsi mais loolu jarul tax ñu tendre par quatre banques Macky Sall <laughs> mais si. six milliards yoo xamante ni leb nañu ko avant année bi nga xamante ni ci lañ ko war a exécuter ñoom dépassé nañ ko loolu bu jarul tendre par quatre lan moo ko jar. non kenn du tendre par quatre président attention mais mais attention président dañ koy def lu raw tendre par quatre. bien sûr dañ koy def lu raw tendre par quatre parce que Macky Sall lu mu def mooy il a trahi les Sénégalais <laughs> ba pare yóbbu suñu xaalis. xam nga le président Bassirou Diomaye Faye il disait que li nga xamante ni mooy fonds politique yi mu foog na fekk mënu ciy dox. Macky Sall daanaka consommé na lépp. waxoon na fi loolu waaw waxoon na fi loolu. Mhm. mais loolu c'est encore moins grave. que xaalis boo xamante ne nii dañ la ko lebal pour nga gérer ci 2024 balaa 2024 bi nga consommé ko ça c'est encore plus grave parce que ñi nga xamante ne du xaalis bu ndaw euh, bu doon ay millions 400 ko war a mais 605 milliards xam xam nga xam nga tey ñu war a mais mais loolu la mais conséquences yi ngay xool tey jii nii toog nañu maa ngi lay wax université virtuelle toog nañu trois mois amuñu euh, connexion internet. alors que c' la deuxième université la plus grande au Sénégal du point de vue effectif. effectif toog nañ trois mois ñu jàng parce que lan amuñu courant ñu ne université Bambey les étudiants amuñu banc. pendant ce temps ñu ne six cent cinq milliards disparaître nañ xam nga sénégalais bu nekkee ne tey dañ ne leen ne. lii fi Macky Sall ak gaayam yi def. Mhm. dina tax ay suba euh, sénégalais yi ñu leen di woo ci takk seen ceinture suba sénégalais yi dinañ leen woo pour que ñu def des efforts supplémentaires. Mhm. bu dee sénégalais yi dañ koy nangu day fekk mu leer na leen ne ñi def loolu ils sont en de payer. mais bu nekkee ni ñun dañ ñu woo suba ak gannaaw suba pour ñuy fay ay facture courant ku doon fay vingt cinq mille ñu demander la à ce que nga fay cinquante mille te ñi waral loolu il continue à pavaner dans ce pays là mais loolu aucun sénégalais du ko nangu ah. moo di campagne ak leneen lu mu ci mën a doon donc li nga xamante ni moo mën a tax sénégalais yi di def ay effort jàpp ne kat essay nii ku ci doon joxe dërëm da war a joxe ñaar dërëm mm-hmm. lii tax ñu mën ko nangu de point de vue mooy ñi leen yóbbu ci situation boobu ñu sentir ne ils sont en de payer parce que Macky Sall lu mu def moo gën a graaw c'est que Karim Wade et Khalifa Sall réunis ont fait. Mmh. mais bien sûr li Macky Sall def boo boolee li Khalifa Sall def liñ ne moom la def lim def sax parce que hmm. dañ ko condamné lim def ak li Karim Wade def li Macky Sall def moo ko gën a graaw te imaginer ku ci nekk ñoom ñaar tëj nañ la cinq kenn ki six ans kenn ki cinq ans. Oui. te li Macky Sall def moo gën a garaaw fukki junni yoon Karim Wade au de euh, en finish ñaar au finish la ñaar lañ ko wax ne lay fay. 138 milliards 138 milliards. on parle de 600 et quelques milliards. yu réer ci yu réer te bokkul ak milliards yi nga xamante ne dañ ne dañ ko dépensé sous le sceau du secret défense imaginez foofu lan moo fa mën a dugg parce que buñ la nee amul vérification c'est sous le sceau du secret défense capable nañ dem jënd. benn grenade à cinquante mille francs mais facturé ko à cent cinquante mille. grenade. waaw. siège su DER bi ñu defar fii ci Mermoz. waaw siège bi. waaw secret la. siège lan DER. délégation entrepreneur rapide. billaahi wallaahi secret défense la. PUDC bii. nga xam ne ay tali ak piste lay defar ak kii kii. secret d' accord président Boubacar Camara lan moo war a expliquer cent. loolu nga wax ne maam cinq cent milliards ñu dépensé ko. chaque instant pied secret défense kenn mënul xam lan moo ci nekk